salaamaaleykum euh, chers internautes tey ñu ngi dalal euh, Madina Touré muy économiste euh, spécialisée en développement mais aussi candidate de l'union citoyenne bunt Bi à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur ñu ngi lay dalal ci biir Sénégal. jërëjëf xalil maa ngi lay sant bu baax maa ngi nuyu internautes yëpp ñi ñuy seetaan di leen wax ñu dalal jàmm ci émission bi. donc euh, ñu fàttali ni candidat nga mairie mairie Mermoz Sacré-Cœur euh, est-ce que am nga bon si si si si union si euh, citoyenne bunt bi donc est-ce que mën nga ñëwaat tuuti si sa candidature lan moo waral candidature boobu surtout au moment où gars yi ñu ngi wax par rapport ak un peu aux candidatures féminines ñu koy gën a encourager. alors ma candidature bien sûr je représente les femmes. mais elle est une candidature candidature bi nga xam ne ñëpp lay représenté muy góor muy jigéen ah dama bëgg wax ne Union citoyenne bunt bi dañu teel a jóg ci 2007 wax ne ñun ay citoyens lañu te bëgguñu ànd ak politique ci mbirum gox-goxaan ñu teel a xam ne. dina mës a soxla li nga xam ne mooy lay permettre nga dem élection parce que loi bi moo ko tënk ñun dañu jàng xam nañ ne benn bés dina jot ñu bëgg a dugg ci élection yi di daw di wuti li ñu naan récépissé te récépissé parti moo koy am ñu ne nañ dem wuti récépissé bés dina jot ñun citoyen du ñu daw ci ginnaaw benn parti dem di bokk ak ñoom mais dinañu am li nga xam ne moo ñuy permettre au même titre que yenn parti ñu dem loolu moo tax bi joxe caution bi mu jotee ñun ñëpp dañu ànd cotiser dem bokk ci ñu njëkk a déposer seen caution à la caisse des te loolu maa ngi koy rafetlu euh, di nuyu di sargal candidat maire yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal bi yëpp y en a 150 dont à Dakar donc euh, vous l'avez dit déposé ngeen caution et tout yow sa candidature pour mairie Mermoz Sacré-Cœur voilà loolu mooy li nga xam ne mooy euh, format bi ñuy demee élection sama candidature li ko motiver mooy ne man dama doon agent de développement agent de développement da ngay nekk ci terrain bi di gis li war a saafara ni population yi di dundee nga teg sa projet war ko yóbbu ci autorité walla ci maire kooku xëy na xamul walla ragal na la parce que nee na peut-être yow agent de boo tegee projet bi di nga réussir moom fu mu réussirul bu ko defee du jàll tey jii nii man en tant que agent de développement dama ne il est de mon devoir sama devoir la tey ma yéeg fi nga xam ne dañ fay amee signature signature mairie pour nga xam ne projet yi nga xam ne population yi ñoom ñoo ciy bénéficier wu mu mën a yomba parce que toujours politiciens yi dañuy ragal agent de développement yi parce que ñun ñooy wax ak ñi dëkk ci gox bi Mermoz Sacré-Cœur c' est plusieurs entités ñu ci bari la li xew Karak xewul Sacré Cœur bokkuñu ay problématique mais ñu ngi ci diggi Dakar mais diggi Dakar ñëpp dunduñu même niveau bi tey jii maa ngi jógee euh, Baobab Baobab fi ñuy wax cité célibataire te dama fa jóge gën a am doole gën a am énergie parce que foofu la nga euh, fi nga xam ne ay problème am na fa logement dëkkuwaay ñu war leen génne jël ay doomu sénégalais yi nga xam ne am nañu droit ak ak yelleef ñu ne leen yéen da ngeen di génn ngeen dem fële ca àll ba nga xam ne defuñ fa dara ñu jël seen suuf wut promoteur mu tabax fa ay appartement wu luxe ñëw dëkkal fa yeneen sénégalais. wala ay étrangers je si loolu am nañ ci ay quotas je ñu fa génne woon. amuñu ci benn quota te justement comme ñun ñu ngi liggéey ci mbirum promotion immobilière xam nañ ne que aujourd'hui ak programme zéro bidonville état dafa ne. bu ñu génnee ci benn doomu aadama fi mu dëkk di ko yóbbu feneen yow kay tabaxal ko defaral ko dëkkal ko li nga xam ne moom nga investir li des ci suuf si lu la neex tabaxal jaay mais ki nga xam ne danga ko fi fekk bul ko génnee ci mukk naan ko demal wuti foo jëm di ko jox ay 2 million ay som yoo xam ne jëriñu ko dara dañu xalaat ne que doomu senegaal ñoom ñëpp a yem égale dignité amul kenn ku ëpp sa morom àq wala yelleef. mais en tant que ce que euh, populations yi xamee nañ la ci yenn euh, activités yi foofu noonu en fait par euh, comme ay don wala activité. sociale voilà. xam nañ ma ci social mais xamuñ ma ci socialu fës comme niñ koy defee woo ñëpp naan damay maye ceeb. te ceeb bi ngay mayee sax boo watuwul <laughs> xëy na bu ko famille bi yëpp bokkee ku nekk benn dànk ngay am euh, du ma def loolu defuma socialu fës man socialu sutura parce que euh, dama gëm ne li nga xam ne maa ngi koy liggéey di ko fayeeku man rek moomuma ko sama njaboot rek moomu ko dama ko war a bokk ñëpp man sama revenu revenu social la ñëpp ñëpp ñëpp ci am wàll noonu laay defee social mais ma xam ne nag sama revenu doyul et que quand jàng naa nu ñuy wutee partenariat pour man mairie tey nii acteur la acteur économique la mairie acteur social la mairie c'est un acteur diplomate tey boo yoree outil bi nga xam ne mooy euh, collectivité locale di nga mën a def action de développement ci sa gox li ma jàpp mooy nekk un maire c'est un c'est le premier acteur de développement ci collectivité loolu moo tax ma bëgg nekk maire. a yombalal say activités mu gën a yombalal uh-huh. développement bi. Mm-hmm. ku ci nekk nag li nga xam ne moo la soxal ci foofu ngay dem wut ay solution mais est-ce que am nga espoir aussi euh, par rapport en face euh, à un adversaire redoutable entre guillemets comme Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz c'est un maire qui est parce que mu ngi def social ñii maman la leen di wooyee ñii tata ñii tonton mais j'estime que li muy def yépp conviction moo tax mu koy def li may def conviction également moo tax ma koy def parce que gëm na ne li muy def noonu la ko war a defee man it gëm naa ne li may def noonu laa ko war a defee. donc euh, mais ba léegi ci kaw loolu yow sa sa sa sa liste nga demee mais pourquoi pas nga rance yow peut-être euh, ci ginnaaw benn bokk yaakaar aussi comme ñu ko ñu bëri defee pour mën a peut-être faire face à Yewwi Askan waaw mais faire face ñun ñëpp euh, dañu dëkk moom laa leen di wax man leen man je suis au-dessus des clivages politiques. affaire gox-goxaan parti politique waru ci am yoon loolu moo motive sama candidature ma ne man ànduma ak politicien parce que duma politicien su ma àndeek politicien dañ may tënk ñoom ci ni ñuy defee comme man am naa sama métode développement la dem wax ak nit ñi seet leen di métti ñu wutandoo ay solution ñu wutandoo ay pexe loolu moo tax ma ne naa dem ànd ceeg représentant gox bu nekk nag parce que bu leen fàtte ne maire du moom kenn de ñun 97 lañu kenn ku ci nekk monsieur le maire nga madame le maire nga dafa fekk ni am na ku ñuy jiital koo xam ne dafa partagé vision am noonu la demee Sacré-Cœur amul benn politicien sur les 97 personnes yu nekk ci ci ci liste bi ñu génn seen kër la engagé wu ne mën nañu géral seen bopp jàng nañu mën nañ ko am nañ volonté bi parce que lépp question de volonté la. donc presque mën nañ ay technocrates lañ wala wër. déedéet boo xoolee Aïta Cissé Aïta Cissé de <laughs> taabalam la yor waaye xam na lan mooy développement Aïta Cissé moom kenn mënul développer mu ngi ci list bi keneen ak keneen. ku ñuy wax xalifa euh, Samba moom ouvrier la am nañ docteur Goumbala c'est-à-dire c'est le Sénégal en miniature mooy sama liste toutes les couches sociales ku ci nekk niveau bi nga nekk rek représenté nga parce que loolu mooy population ñun dañu am chance Sacré-Cœur ñu am des inscrits des intellectuels mais li may wax intellectuel da nga war a xool sa expérience ak euh, li la yàlla may ci xel nga def ko au service de la population soo ko deful di nga am lu la naqari parce que keneen engagé wu na xam nga ne li muy def du noonu mais yow mi engagé wul da koy subir loolu rek la. parce qu'on a remarqué que ni peut-être au Sénégal euh, nit ñu bëri soo duggoon en politique donc li ñu gën a gëm par rapport ak yaa ngi ñëw campagne baa ngi ñëw donc euh, bruit bëri dugg si koñ bi ku nekk xam donc mais yow da nga bëgg ñëw andi du uteeg loolu euh, mais est-ce que yaakaar nga ni sénégalais nañ ko toog ci ligne boobu parce que surtout nekk. mais sama commune ñoom la ku ci nekk candidat nga ci sa koñ da ngay xool ci sa koñ. li nga fa liggéey ak li nga ji nit ñi ak crédibilité bi nga am ci sa koñ ngay jëf loo xam ne kenn xamuloo ci ñàkk fayda kenn xamuloo ci euh, bari histoire maanaam nga nekk koo xam ne daal consensus boo waxee diw ñu ne ah kii moom fulaak fayda rek lu mu ñu daal dinañ ko wuyu au moins mais am na ñoo xam ne boo leen tuddee dañ naan ah kii daal jaralu ma bàyyi ma toog fii rek yéen xëy na dem leen après lu mu wax rek ngeen wax ma mais am na ñoo xam ne te ñoo ñoo nekk ci liste bi ku ñu woo wala kër gu ñu dugg dañ leen naan bismillah parce que ay nit ñu baax lañu nit ñu gore lañ xamuñu leen ci dara loo xam ne ñu ngi koy def lu dul noonu te des personnes yoo xam ne dañu intègre dañu juste te ñu jara wóolu lañu parce que ñu am kàddu lañu parce que loolu tamit dañ koy seet balaa ñuy dugal liste dañuy seet nit ki parce que ku ci nekk comme euh, parrainage la rek da ngay dem wax ak ñi nga xam ne ñoom nga nekkal ah buñ la nee demal nga am seen kàddu dinañ nga jàppale noonu la rek. donc euh, mais ci kaw loolu aussi ñu fàttali rek yéen a yéen a euh, porté candidature donc naka nga jàngatee aussi euh, situation boobu bi amoon ci biir Yewwi Askan Wi xëccoo amoon entre Barthélémy Dias ak Soham ci ba ci diggante boobu Barthélémy la ñuy mujj choisir après yéen ngeen porte candidature Soham donc naka nga jàngatee woon situation boobu. waaw situation boobu dama ko jàng à posteriori parce que suivre ma ko woon sax parce que daanaka du may suivre activité politiciens yi. xam naa ne Soham c'est une grande dame euh, nekk na première dame bu nekk euh, maire ci Dakar euh, c'est maire de famille la elle fait beaucoup de social xam naa ne que intègre na donc pour man benn femme modèle la et ça a même peut-être étonné xëy na loolu moo tax. bi euh, monsieur le maire euh, Sall nekkoon ci euh, jafe-jafe ñu def consensus ci ci moom parce que bu leen fàtte ne li xal li li li fal le maire Sall moom moo fal Soham Wardini. waaw faloon ah, l'unanimité uh-huh. conseil euh, municipal euh, Dakar ñoo fal soit Soham Wardini à l'unanimité xam nga kooku dañ ko fal mu commencé di liggéey di def ay résultat nit ñi bëgg ko ñu xalaat ne que ah kaawam kat ni ñu defee woon consensus noonu lañ koy continuer ndax mu mën a continuer mais daf ñu étonné tamit ñu ne ah moom mu ngi liggéey fal nañ ko lan moo tax ñu ne ko demal toog comme ça Euh, bàyyi kële keneen mu jàll mais femmes yi tam ne ah attention parce que même une dame y a eu le caucus des ñëpp jigéen ñëpp taxaw ne mais il est hors de question que ñuy jël jigéen di ko néewal doole noonu maanaam ay góor di sot sotoo jigéen ñun noonu lañ ko jàngatee. alors ñun jóguñu pour sax pour jàppale candidature am parce que euh, ci benn euh, on respecte vraiment les groupes sociaux groupe politique bu nekk dañ lay dañ lay dañ lay jox sa gëdd respecté la euh, soo am dañ ko xam mu xam ay leader yu nekk ci bunt bi yu doon wax de ñun candidature Soham ñii buñ ko naree néewal il faut vraiment yéen ngeen jóg ngeen rassurer ko ne ko di ngeen ko mën a porter parce que moom ci boppam euh, bàyyiwul elle était prête à porter cette candidature la parce que moom euh, Dakar lay liggéeyal xoolu ci parti xoolu ci keneen mais su parti bi ne moom na bàyyi moom mu xool lan mooy intéret Dakar waay mais soo am elle a été courageuse dafa défendre intérêt Dakar waay à travers sa personne parce que xam na li mu leen mën a liggéeyal li mu leen mën a apporter. Hmm. ok donc pour en revenir un peu à vous donc euh, jot nga aussi rencontrer les populations. waaw euh, qu'est-ce qui de vos échanges y a y a population yi foofu. waaw euh, les populations c'est nous man ci population bi laa bokk échange yi mooy nekk Mermoz Sacré-Cœur dafa amoon euh, benn qualité de vie. environnement bu baax propreté nit ñi nekkoon ci jàmm doon liggéey mais ñu gis ne que dañ leen euh, kenn toppatootu leen ñu créer gis xam ngeen cité kër góor gi mais mu nekk dans un état vraiment déplorable gisuñu ku ñu taxaw ñu ne tamit lu ci bari am na insécurité mais ñi nga xam ne dañu sonn liggéey nekk euh, ay fonctionnaires ñii retraité ñii jàng ñii jànguñu mais jàng nañ métier kenn gisatul sa bopp ñu ne mais ñun kat moo ñu tëye loolu moo indi un peu le désarroi parce que euh, soo nekkee fenn. da nga xalaat ni que am nga maire bu war bu la war a toppatoo un maire doit prendre soin de sa population waxuma prendre soin de ses relation de mais ñépp ñoo ci war a bokk yam yow da nga war a seet ki yeewoo fii ki yeewoo fële ndax fanaan nag jàmm ndax dara mettiw ko bu amee lu koy metti nga andi saafara bi nga nemmeeku leen parce que laajuñu leneen lu dul ku ñu yëg mais munoo nekk ci benn euh, commune après nit ñi xamul xamul duñ duñ sax gis mais kan la ñuy waxal bu boobaa un maire li muy liggéeyee état moo ko jox mais état dafa jël budget jox ko maire ne ko dimbale ma jàppaleel ma yow ñi nga dëkkal yow laa leen dénk mais dañu dem ba moo Sacré-Cœur état dafa mel ne dañ ñu bàyyi parce que am na benn mésentente ñu ne mais ñun. entre politiciens. mais ñu ne mais ñun ñun politiciens yi tënkuñu ah. léegi coowal politiciens war na tax ñun ñu abandonné ñu mais loolu mun nekk loolu rek la. mais ci kaw loolu lan nga nar a proposer population par rapport ak sa programme. sama programme plusieurs euh, aspects déjà defaraat. tali yi defaraat cadre de vie bi bi ñuy tabax euh, immeuble yi garab yu bari dañ leen dagg il faut replanter bu leen fàtte ne dans les années fin 70 début 80 foofu yëpp àll la woon ah. loo fa sànni rek mu sax donc dañu bëgg a euh, reverdir mu nekk un poumon parce que boo saxalee ay garab. ñun on est au milieu de plusieurs quartiers xëy na am na quartier yoo xam ne amatuñu chance am espace ñun am nañu chance boo gisee boo duggee ci kër yi même kër yi bi gën a modeste am na plante am na fleur massama ci biti ñun dañu bëgg suñu commune rafet ku fa romb rek sa xel euh, féex tali yi ñu defar ko mais au-delà de ça dañu dugg ba ci biir kër yi les soins de santé la prise en charge des soins de santé parce que xëy na yeneen gox yi nit ñi mën nañu sonn génn yuuxu suñu commune kenn du génn yuuxu loolu mooy problème bi dañu defee ne que tout va bien nit ñaa ngi ci biir kër gi dañ leen fay fekk seet lan mooy problème bi xale yi jàng nañ amuñu liggéey mais moo sacré que c'est devenu un pole économique les plus grandes entreprises yu ñu ci gën a mag ñu ngi foofu banque yëpp ñu ngi fa ñu ne waaw mais xale yi jàng nañ te gisuñu benn relation entre milieu économique boobu ak xale yi ñu ne nag mairie war na joue rôle boobu rôle de facilitateur nekk sponsoru xale yi di leen mettre en relation ak entreprise yi mais day fekk aussi mu assuré wu renforcer seen formation identifier métiers yi loolu da ngay dialoguer ak entreprise yi laaj leen lan ngeen soxla ah man de ci sama population am naa ñu mën a liggéey lii mais nga def mise en relation un acteur économique mairie acteur économique la acteur social il faut mettre en place un système de santé ñëpp amuñu prise en charge mais système de santé sociale mairie dafa ko war a teg dafa am ñun nag dafa am fu ñu fu ñu jàngee dund ko loolu mën na nekk ma ñëw ci logement wax naa cité célibataire 202 famille ñu war leen génne ci commune bi ñii fi la ñu juddoo fi lañu màggee mag ñaa ngi fi mais naka ngay gàddoo ay famille yu lëm di leen génne ci lu mel ni commune di leen yóbbu feneen à des centaines de kilomètres de Dakar mais man loolu mun ma ko accepter man maire loolu du am au contraire dans le projet zéro bidonville ñooñu dañ leen di dëkkalaat dañ leen di tabaxal dëkkalaat leen mais ñu continuer fay euh, euh, location def location vente ñun ñëpp location vente la suñu parent yi amee kër yi mais lu tax duñ leen defar location vente même bu ñu leen defarul location mais mairie na jël tabax di leen loué waaye bañ leen bàyyeeg propriétaire privé yi ku ci juddu am famille foofu soo amee soxna da ngay génn parce que attanoo loyer Mermoz Sacré-Cœur c'est injuste. waaw ah, ci ci kaw lool sax parce que gars ñuy waxu cheraayu loyer yow euh, ban jàngat nga am ci loolu parce que le président Macky Sall génne benn décret par rapport ak pour gars yi wàññi ko mais entre temps y a boobu léegi ak gars ñu di casque cheraayu euh, loyer yi. parce que euh, président Macky Sall bi muy teg loolu dafa yaakaaroon sur la bonne foi des propriétaires. ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ce sont des citoyens ragal nañ yàlla appliqué nañ ko wàññi nañ location yi wàññi nañ ko mais ñi nga xam ne ah seen intérêt la ñu xool xëy na dañu prétexté yokk nga mën ko nga toog soo ko mënul comme yoon dafa défendre aussi locataires yi ñun la abal ma sama doom mooy ñëw walla damay defaraat fexe ba nga génn ñu yokkaat loolu nag accompagnement ak contrôle moo manqué woon mais dañu yaakaaroon ne rek nit ñi dinañ xam le bien fondé li baaxoon li taxoon ñu koy def te dañu xalaatoon ne nit ki tamit di nga yërëm sa moroomu nit waaye gis nañ ne que déedéet moo tax nit ki doo ko bàyyeek moroomu nitam il faut mu am institution bu taxaw te mairie foog mu taxaw mu am ay logement municipal mais moom ci boppam mu nekk propre euh, euh, bailleur la mairie mën na tabax ay logement municipal moom ci boppam muy loué ay population recettes yi di dem ci mairie bi recettes di dem ci mairie bi di dellu si waat ci population yi ok donc xanaa peut-être euh, ñëw tuuti ci politique bëggoo ko bof kooku doo politicien un peu mais une dernière question rek rapport ak maa leen di suivre parce que quand boo nekkee ci milieu il faut pas aussi nga toog ne du ma xool politique yi parce que ñoom tam ñun lañ fi nekkal. donc juste par rapport ak euh, liste parallèle yi ñu au niveau la coalition benn bokk yaakaar que amoo impression que ni le président Macky Sall amul contrôle ci nitam yi. man xalaatuma ne absence de contrôle la c'est que dafa jëlul décision mm-hmm. en père de famille il a jugé que warul woon trancher en faveur de kii wala kële mu bàyyi leen. ku bëgg a demal sa bopp soo amee moyen nga dem terewul terew en fait mais dafa peut-être agir en père de famille lu tax may autoriser kii du ma autoriser kële ah père de famille da nga yemale ah, maintenant nag man man noonu laa ko gisee bu fekkee liste parallèle am na noonu laa ko gisee mais man pour man plusieurs ambitions yu taxaw la te mu bañ a freiner ambition wu kenn noonu laa ko gisee. ñoom ñu euh, sa programme bi nga am ak euh, au niveau commune de Mermoz sacré waaw am naa programme boo xam ne euh, politiciens yi ñoom dañ koy wooyee investiture <laughs> ñun ñu wooyee ko forum social parce que dañuy dajale ñëpp ñu waxtaan ñu waxtaan suñu biir ku ci nekk génne problème yi parce que tamit sooy dox ci dara da ngay déglu nit ñi. ñun ñëpp bu ñu génnee problème yi ñu wutandoo solution yi moo tax sama slogan mooy nañu duggandoo ci mairie bi gérer ndax leen ku leen wax ne da ngeen di politique ne leen déedéet gestion la def defi dañuy dem gérer ji maire bi loolu la. maa ngi woo cellules yi nekk ci euh, Mermoz Sacré-Cœur yëpp di woo euh, dëkkandoo yi ci li may wooyee forum social ñu koy euh, def ci suñu siège bi nekk rond-point boulangerie jaune le vingt 27 novembre. Euh, samedi 27 novembre incha allahu rabbi bu boobaa dinañ yaatal waxtaan bi euh, dinañu répondre question yi aussi li nga ma laaj ni ñoom it dinañ ma ko laaj mais ñu yaatal waxtaan bi yaatal géew bi pencoo ko euh, dinañu mën a xam nu ñuy gérer gox bi bu boobaa buñ ci jotee. ñu fàttali rek ñu ngi woon dalal Madina Touré économiste spécialisée en développement en même aussi candidate. Euh, union citoyenne buntu bi à la mairie de mu Sacré-Cœur ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf maa ngi ziar ñëpp jërëjëf di leen wax ba beneen incha allah rabbi. jërëjëf.